bi moom nee a defe na ni tarixa bi moom xëy na ku ne wëli dana la jaaxal xëy na ku nekk wëli yu dana la jaaxal ba mu des ku bokk ci tarixa Cheikh Tidiane ba mu des ku bokk ci tarixa Cheikh Tidiane kii ni suba la jël wér nee na kii suba laay jël wér décide ko décide dëgg ci moom muy dëgg ci moom waliyu la waliyu la te suba lay jël wér te suba sax lay jël wér kon jëlagul nee na kooku jëlagul léegi ci jël nag léegi ci jël nag ci si yàgg nag ci si yàgg nag ci dem ba génn àdduna ci dem ba génn ci àdduna nag loolu kenn xamul lu mu doon kon loolu kenn xamul lu mu doon ñaari façon waliyu nag ñooy am ñaari façon waliyu nag ñooy am waliyu bu ñu tay wilaayam waliyu bu ñu tay wilaayam ba xamul ni moom waliyu ba xamul ni moom waliyu ak waliyu boo xam ni ak waliyu boo xam xam na ni moom waliyu xam na ni moom waliyu ñaari façon waliyu nee na ñaari façon waliyu yooyu ñoo waliyu waliyu mën nga ko nekk mën nga ko nekk waaye nu tay sa wilaaya wante nu tay sa wilaaya nëbb ko nëbb ko ba yow doo xam ndax wali ba yaw doo xam sax ndax wali waaye boo dajeeg wali moom nee na wante boo dajeeg wali moom mu gis sa jë allahu moom mu gis sa jë allahu di si tàkk di fay di si tàkk ak di fay dina xam ni yow wali nee na dina xam ni yow wali ak wali boo xam ne ak wali boo xam ne moom xam na ni moom wali la moom xam na la moo tax nee na moo tax Mawlaay Cheikh Tidiane. Mawlaay Cheikh Tidiane. daan na ci joxe ay tegtal. daan na ci joxe ay tegtal. bokk na ci tegtal ya. bokk na ci tegtal yi. daan na wax ku bokk ci tarixaam. daan na wax ku bokk ci tarixaam. te xamuloo sa wilaaya. te xamuloo sa wilaaya. xamuloo ndax waliyu nga. xamuloo ndax waliyu nga. mën nañ la ko wan. nee na mën nañ la ko wan. ci wàllu wasiyu. ci wàllu wasiyu. muy wax la ko nga dégg. muy wax la ko nga dégg. mën nañ la ko wan ci karaam. mën nañ la ko wan ci karaam. mën loo la. mën loo la loo xam ni waliyu rek. loo xam ni waliyu rek moo koy. mën nañ la ko wan ci martaba. mën nañ la ko wan ci martaba. waaye mën nañ la ko wan ci géej. waaye it mën nañ la ko wan man ci génn Seydi Harisim laaj ko nee na Seydi Harisim laaj ko ni ko bu dee génn ni ko bu dee génn nan la ci nit di xamee ni waliyu nan la ci nit di xamee ni moom waliyu def ni ko mooy bu bëree lu muy génn def ni ko mooy bu bëree lu muy génn di tëri di tëri bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim innaa fatahnaa laka fatahan innaa fatahnaa laka fatahan mubiin suratul Fatih nee na suratul Fatih boo koy gént di ko tari booy bare loo koy gént di ko tari ci wali yi nga bokk ci wali yi nga bokk ci lu amul benn werante ci lu amul benn werante te di nga bokk aussi te di nga bokk aussi ci ñuy tasaare diinal ci ñuy tasaare diinal islam kon yooyu ay melokaan la nee na kon yooyu ay melokaan la li tax nag tarixa Mawlaay Cheikh Tidiane nee na li tax nag tarixa Mawlaay Cheikh Tidiane mën def nit wali mën def nit wali salaatul fatiha salaatul fatiha dafa gaaw dafa gaaw ci jokkale nit ki ak yonent ci jokkale nit ki ak yonent gaaw ci jokkale nit ki ak yàlla gaaw ci jokkale nit ki ak yàlla gaaw ci ak àggal nit ki. gaaw ci àggal nit. ci dimension xaybu boo xam ne. ci dimension xaybu boo xam ne. ruuxam dafay déggoo. ruuxam dafay déggoo. uluhiyaat yi. uluhiyaat yi. te foofu boo fa àggee rek. te nee na foofu boo fa àggee rek. su boobaa da ngay nekk wëli. su boobaa da ngay nekk wëli. li ci def nag. nee na li ci def nag. mooy zikir bi ngay def. mooy zikir bi ngay def. pour mën yokk sa martaba. pour mën yokk sa martaba. kooku nag ku nekk moo koy sabablul boppam. kooku nag ku nekk moo koy sabablul boppam. ndax am na ñuy juddaale wëli. ndax am na ñoo xam ne dañuy juddwaale wëli. wëli ku ko dégg xam ne may la. nee na wëli ku ko dégg xam ne loolu. waaye li may bi di rëy rëy li ñu may bi di rey rëy yëpp nag faw ngay nag sabablu faw nag ngay sabablu pour nag di mën a yokk sa martaba pour nag di mën a yokk sa martaba noonu la nit di sababloo noonu la nit di sababloo man di yokk martaba man di yokk martaba côté baatin ci côté baatin ba nga xam ni ba nga xam ni dina bi ci di gis lu nit dul gis dina àgg ci di gis lu nit dul gis loolu la nit di sababloo aussi noonu la nit di sababloo aussi mën a yokk wilaayam man a yokk wilaayam ci côté baatin ci côté baatin bay dégg loo xam ni bay dégg loo xam ni nit kese du ko dégg. nit kese du ko dégg. te loolu nag. te loolu nag dafay nek dafay nekk loo xam ne ci yàlla lay jóge. loo xam ne ci yàlla lay jóge. loo xam ne aussi ci yonent bi lay jaar. xam ni aussi ci yonent bi lay jaar. ndax euh, wëli yu dina toll foo xam ne. ndax wëli yu dana toll foo xam ne. ñu bari xàmmee wu ñu wëli. nee na ñu bari xàmmee wu ñu ndax léeg nga dem rek. ndax léeg nga dem rek. benn kilifa bi la nangam mi ngi sa poos rek. nee na benn kilifa ni la nangam mi ngi sa poos rek. nga ni wëli yu la nga kilifa googu wali mu ni yow gaaw nga def nit wali mu ni yow gaaw nga def nit wali doo gëstu ndax li nekk sa poos doo gëstu ndax li nekk sa mu wax la ni la mi ngi ci mu wax la ni la mi ngi ndax jinne ko ko wax ndax jinne ko ko wax wala ñu am jinne nee am na ñu am ay jinne boo xam ni lu nekk sa poche rek boo xam ni lu nekk sa poche rek jinne bi ni leen portable la si ne jinne bi ni leen portable mooy numéro nangam mi ngi si numéro nangam mi ngi si mu wax la ko rek mu wax la ko rek nga gis naa wëli nee nga daal di gis naa wëli de wëli du noonu nee na wëli du noonu de loolu mën na nekk loolu mën na nekk mu nekk wëli mu nekk wëli waaye mën na nekk aussi waaye mën na nekk mu nekk ku am ay jinne mu nekk ku am ay jinne wëli lañ koy xamee nee na wëli lañu koy xam mooy lu muy tëral lu nekk mooy lu muy tëral lu nekk ci leer la loolu ci leer la loolu di tëdd lépp lu wëliyu di tëral. lépp lu wëliyu di tëral. ci istixaama lay tëdd. ci istixaama lay tëdd. ci leer lay tëdd. ci leer lay tëdd. loolu ngay mën a xamee wëliyu. nee na ngay mën a xamee wëliyu. te wëliyu aussi. te wëliyu aussi. pouvoir am kese. pouvoir am kese. du toog rek. du toog rek. naan nangam a nekk sa poos. naan nangam moo nekk sa poos. mën naa dagg sa montre sa doo ko yëpp. mën naa dagg sa montre sa ko yëpp. loolu daanaka wëliyu sàll ko. nee na daanaka loolu wëliyu. Seex Alhaaji Malick nee na. nee na karaama ñu àggagul ci yàlla. karaama ñu àggagul ci yàlla. ñoo koy koy fooye. ndax bu àggee ci yow dinañ tal leneen dinañ tal leneen lu dul toog di def ay karaama lu dul toog di def ay karaama kon kon da ngay gis ni da ngay gis ni yooyu yëpp nag yooyu yëpp nag ngànnaay la rek ngànnaay la rek waaw waxuñu la nag nee na waxuñu la nag nii la nag karaama moom nii la nag karaama moom rek boo ko amee rek boo ko amee denc ko abadan denc ko abadan bu ko wane benn yoon bu ko wane benn ah, yoon waxuñu loolu nag nee na kenn waxul loolu nag dañu ni la kay dañu ni la kay bu a a lu amul maanaam fekk lu amul nga amal ko nga mën ko amal yore ko yore ko ci sa martaba la bokk ci sa martaba la na waaye nag ki ñëw si yow wante nag ki ñëw si yow li la mënul nekk li la mënul nekk mënul am mënul am waaye boo ko wanul nag da ngay sa bopp ko wanul nag yow da ngay sa bopp ki ni kay mënul nekk ki ni kay yow mënul nekk ni la mënul am ni la mënul am ah waaw kooku mën nga ko wan nee na kooku kay moom mën nga ko wan waaye ki la waxul dara waaye ki la waxul dara na ni mën na na ni mën na am kon baax nee na kon baax kon loolu mooy ngay zikr salaatul fatiha da ngay zikr salaatul fatiha am ci ndigal am ci ndigal ñu jox la ay zikr yooyu def jox la ay zikr yooyu def nga ciy góorgóorlu nga bi nga xam ni moo ko moom ba di Mawlaay la ci mu sedd la ci parce que wilaya yëpp parce que wilaya yëpp pouvoir yëpp pouvoir yëpp martaba yëpp martaba yëpp Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane yi la ko yonent bi jox moom la ko yonent muy xatmiyatul maktum muy xatmiyatul maktum di barzaqul maktum di barzaqul maktum di barzaqul xayb di barzaqul xayb di di ko li martaba yi du jeex martaba yi du jeex yooyu yëpp nag yooyu yëpp nag mooy sedd mooy sédd nit ki ko soob nit ki ko soob bokk ci xadaraam bokk ci xadaraam jox ko ca jox ko ca kooku jaaxal nit kooku jaaxal nit waaye lépp moom Mawlaay Cheikh nee na wante lépp moom Mawlaay Cheikh